liggéey bi dafa am ñaari ñaari ñaari pàcc dafa am benn bi nga xam ne mooy wàllu sécurité kenn ku ne xam na ne war ma ji li si ëpp sécurité la waaye mooy li nga xam ne moom la ñuy sàmm am beneen pàcc boo xam ne nag moom euh, dafa jëm si wàllu ñoŋal bërëb yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi mooy leeral mbedd yi leeral bërëb yi nga xam ne ñoom ñoom dañ koo fat wala dañ see defe jëfandikoo noo xam ne sago dañ see topp seen sago mm-hmm. te sëriñ bi tàmbali woon ko sa gaar ba muy ab joxoñ boo xam ne bii defoon na ko ñu tàmbali woon ko sa gaar ba muy toj gañ tojoon gaar ba jàll ba si corniche bi ba si marché Ocass loolu day liggéey boo xam ne dafa nekk si dafa bokk si sàmm war may Touba te sëriñ bi bàyyi ko si sunu loxo ba léegi mu doon loo xam ne waruñu ko bàyyi ginnaaw waruñu ko fàtte xam naa li si mujj mooy garab yi nga xam ne doon nañ ko jëmbat muy reboisement bii ñu doon def si corniche bi gannaaw ba ñu dindee garab yi ñu jëmbat ñu defaat fi ay xay euh, sàkk woon nañ sax si ñi nga xam ne ñoo dëkk uuf garab yi ñu farlu si di ko di ko arrosé ak di ko toppatoo waaye ñàkkul yenn yoo xam ne yoo xam ne sàggante tax na moom mu loru yooyee bokk na si li ñu fas yéene jëkk saafara bu ñu jógaatee tàbb si liggéey bi bokk na si nag li nga xam ne moom la ñu mooy wàllu marché yi ndax sëriñ bi marché yi da am da amoon ak jaaxle lool yaakaar naa ne sababu liggéey bii bari na si loo xam ne si foofu la bàyyi ko muy occupation anarchique boo xam ne dañ ko def ñu ñu marché yi ñu nekk sa anam yoo xam ne tey bu jéeyi amee ñi nga xam ne ñooy wàllu du ñu am sax fu nu jaar ba wàll loola moo doon sababu sëriñ bi digle woon ñu yaatal bërëb yooyu tàmbali woon nañ ko si marché Ocass incha allahu daanu ko wéyal ndax ñoom am nañ yéene ànd ak ñun dox googu yi ñoom waa marché occas muy marchand ambulant yi ak commerçant yi ba am na jéego ñu si doxoon fa seen ko yéene ànd ak ñoom wéyal ko marché maam Seynabou Ndiaye bële nga xam ne dafa ñoom dañoo delluwaat si kaw tali bi fi camion yi di jaar nga xam ne camion bu dérapé wala oto bu dérapé def loraange ju rëy rëy sëriñ bi bëgg nag ñu bañatee xaar ba jéyi am ñu topp si di wax waaye ñu jéem a fexe ba Euh, fagandiku si loolee loola mooy sa sëñ bi wax ni fépp fu danger mën a am nañu jéem a taxaw tem si faggan euh, faggandiku sa loola ba bu mënta ñàkkit buy am doon loo xam ne lu oyof lay doon kon ñu xam ne marché yi déguerpissement yi nga xam ne moom lañ doon def incha allah dañ ko fas yéene wéyal muy pàcc bi jëkk si wàllu wormay Touba ñu teg si nag li nga xam ne mooy tere sëriñ bi jëm si wàllu Euh, doxalin yi nga xam ne nit ñaa koy dox wala melokaan yi nga xam ne dama koy tënk rek si ñetti euh, benn minute su ko defee ñu xam ko activité politique loola waxoon naa ko sëriñ bi dafa wax ni bokk na si li ko gën a naqari leeraloon naa ne kuy yëngu si politique na ko sëñ bi waxe woon na dem foo xam ne fii kenn du la ko ay waaye Touba bëgguñu fi caravane bëgguñu fi meeting bëgguñu fi ay réunion bëgguñu fi ay tàccu nit ñi topp di def ay kii yooyu yëpp sëriñ bi wax na ne képp ku ko bëgg a def na ko dimbali ngir jëmmi sañ Touba defe ji ko feneen loolu tënk naa ko beneen bi si topp bokk na si loolu nag ku ko def moom daan yi jëruñu di ko wax beneen bi si topp mooy eh, nit nit ñi di toggoo jigéen ñi nit nit ñi di si jakartaay yi loolu ñaaw na lool sëriñ bi nee na image bi ñaaw la mm, loola nan ko aaye ñu ngi sàkku ña koy def ñu bàyyi ko te ñiy togg góorit nañ xam ne ñuy togg ndax euh, agression yu bari léegi mu ngi am si nit ki jakartaay togg ki si ginnaaw di këf fi jàmbur ñuy daw ba loola naax saay yooyu yëpp nag yéen ñi yor jakartaay yi na ngeen gën a fagaru ba kuy yàq tàbbi seen biir loolee kookee bañ a am ndam li si dolli ko mooy yokk euh, yokk karaw loolu moom sëriñ kilifa yi aay nañ ko ba tey lu jëm si wàllu ay mèche ay greffage loolu tamit bokk na si li nga xam ne ñu ngi ñaan so suñu bokki soxna yi ñu tàqalikoo ak moom ndax du bëgguk sëriñ bi te ñoom li sëriñ bi bëgg rek si lañ war a nekk ñu ngi sàkk ñu bàyyi ko euh, yére yoo xam ne dañu koy fànt nag ba mu weesu ab óom waxuñu fànt boo xam ne bii ak siwul si óom waaye yére bu ñu fànt ba mu weesu óom nga xam ne say pooj day feeñ loolu dañ koy aaye kun ko gis danañ la teg si danañ la soññi ngir nga bàyyi ko ñiy jëfandikoo ku si jàpp si loolu danañ la jébbal gendarmerie wala police ñoom ñu def li war si yow loolu ñeel na tamit ñi nga xam ne jàpp nañ leen si xeeti yàmba ak ñi nga xam ne dañ leen a jàpp si ak càcc sàcc goo xam ne da ngay beru di ko def wala dangaa am ñoo àndal di ko def wala da ngaa jëfandikoo ay ngànnaay wala ay pexe loola ñun danañ la jàpp teg la si loxo ñi nga xam ne ñooy police wala gendarmerie nga su ko defee ñoom ñu def si la sa war ak pon kun si jàpp am na daan yoo xam ne daañu la ko teg su ko defee daan moom da nga ko def li jëm si wàllu xërëm xërëm la ñu wax loola am na am na lu ñu ci defoon léegi ak leeral xërëm mooy ñiy jëfandikoo loo xam ne lislaam nanguwu ko lu haram la lu mel ne di jëfandikoo ay ay ay ay deret di jëfandikoo ay xeet yoo xam ne yu haram la xam nañ ko loolu nag bokkul ak ñun lii ñu xam ñi nga xam ne dañuy yor seen i xaatim di xaatim wala yor seen i ay seen cunguf ak xeet yooyu loolu fii lañ ko fekk te ñëpp ko yittewoo di ko jariñoo loolu waxuñu ko waaye ku fi indi loo xam ne daal lu haram la lu mel ne ay jàllanga ki fétichisme daal loolu xam nañ ko ñu koy def xam nañ ko loola dañ koy aaye kon si jàpp dañ la teg daan yoo xam ne wax dëgg yàlla dina xaw a ñiy jëfandikoo à sàngara noonu xam ngeen naka jekk des ko fi aaye ñi nga xam ne ni dañuy euh, jaay seen bopp di ay góor wala ñuy sëy ci seen biir di ay góor muy homosexualité loolu xam nañ ko ñoo loolu moom daje nañ moom fii ay yoon loolu moom ñu ngi ñaan yàlla yàlla bu mu bu mu fi amati mukk seddi na ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo am tëgg tëgg mi dafa bokk ci li sëñ bi tere muy tëgg sabar ak tëgg xiin nag ni ko sëriñ bi waxe woon yi nga xam ne dañ koy def di tëgg ay xiin loolu bu ñu sañoon ñëpp ñu bàyyi ko Euh, jublu si li sëriñ bi bëgg rawatina nag xew yi xew yi nga xam ne bu amee dañuy tëgg ay bool di tëgg ay ndënd ñii di tëgg ay bongo yooyu yëpp wax dëgg yàlla fu nu ko fekk bokk na si li nga xam ne ñu ngi koy tere bokk na si li ñuy tere mooy col gu yiwat yi col gu di yi suñu ko waxee mooy col gu xat col gu gàtt col gu yaraax loola ñu ngi sàkku képp koo xamante ni kii yaa ngi si loolu nga bàyyi ko wan ko ginnaaw fas yéene di sol sol bu yiw di muur Ah, muy góor ak jigéen nag ndax col gu yóo di moom góor dina ko def jigéen dina ko def loola ñu ngi koy sàkku si ñëpp ah, li nga xam ne mooy ah, jaay sa bopp si wàllu jigéen muy muy na yàlla baal lu ñaaw lu bon loolu ñu ngi koy ñu ngi koy aaye di sàkku kenn bañ koo kenn bañ koo defati li nga xam ne mooy ñàkke war ma njabootug sëñ Tuubaa gi ñàkke war ma njabootug sëñ Tuubaa gi loola si nun lay tàmbalee nun nun xalaatunoo ñàkke war ma njabootug sëñ Tuubaa loolu xalaatunoo ko mooy ku nu dajeel wala ku nu giseel nga bokk si njabootu sëñ Tuubaa ñun lenn rek lañ seq ak yow mooy war ma kon du ñu nangu kenn jóge feneen di ñëw bëgg yàq wala nga bëgg a jaxase war ma yi bëgg a suufeel wala nga bëgg a jalgati war ma jooju nga xam ne warloo nañ koo ak Serigne Touba loola bokk na si li ñuy aaye. waaw ah, occupation voie publique moom la ñu waxoon bi ñuy wax si wàllu marché yi ak euh, wàllu corniche bi ndax corniche bi dañ fi jaaraat defar ko te ñu fi jóg nag mooy di jaar ci corniche bi li si sëriñ bi jublu woon mu leer nañ ñi lépp lu fi nekk wuutee wu bokkul ak loola ñu dindiwaat ko ba mu set wicc kon ñi ngi ñaan mboolem ku tegaat dara si corniche bi. wala nga defaat ko loo fa wër def nga gaaw dindi ko ndax incha allah buñ fa ñëwee daanu ko dindi ñi ngi jeexal nag suñu kàddu si di sant ñii nga xam ne ñoom la ñu jàkkaar lool muy waa presse ñii di tas xibaar yi di jaar si sëriñ Fallou Gala Sylla nga xam ne si moom la loolu jaar ak euh, sëriñ Naar seen euh, euh, kuréel gii nga xam ne yéen a takku taxaw tem ngir lépp luy xibaar bu nu war a jot ci liggéey bii ngeen joxe ko sa na nga xam ne noonu la wàcce sa na mu gën a jube ak na mu gën a rafete ndax taskatu xibaar mën naa defar mën naa yàq waaye yéen yàq doo defar dong mooy seen yitte defar mooy seen bëgg ndax yitte jii ñu am si liggéeyal Sëriñ Tuubaa muy ndigal lii sëriñ bi ba mu koy wax dégg ngeen ko seen bopp noo yéen ko ànd ndax kàddu gi fu mu àgg yéen a ko fa àggale kon nag yéen xam leen ni ñoo yéen a ànd liggéey bii lépp lu si war njabootu Cheikh Rafal gi rek war na leen si yéen fu ngeen mën a féete nag si organe bu ngeen mën a nekk kon ñi ngi leen di sant si turu sëriñ bi tey sàkku nag ñu ànd ko ak yéen euh, almouridia ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp mënuma koo lim organes yi mat nañ fanweer ñi ngi fi li lu ñaan di ko sàkku si yéen mooy lii di ndamul sëñ Touba muy nu egg ba si dëkk bii doo fi doxati mukk ba gis luy nuroog war ma ju ñu xotti loolee yéen mooy seen mission principale seen mission première ni mu doone sunu mission ñun taalibe yi ndax ñu leen a doon ay taalibe ñu ñaan di sakku ñu ànd ko bokk sàmmandoo ko bokk téye ko bokk waggarandoo ko ba ni ko sëriñ bu bëggee mu amee ko ni kon foofu laay wàccee sama kàddu ah di jox euh, sëriñ Fallou Galas mu introduire sëriñ sëriñ maam Cheikh su ko dee sëriñ maam Cheikh tëj waxtaan wi ñaanal na mu mën a yeewiku asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu